tangal bégee mouni bégal. eau royale Au nom Hôtel Dakar, le chic en toute simplicité. Subinfo International IT Academy of Dakar. Forma gelato naturalmente italiano. Cajor. D2VA Le pop shop. Calia. Vicky Collection. Johnny Star. Golden Express.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 دم خيون خم خم يكتما جو كيف سوري يا كاجي تما ما يتاخدي دم من يودان الما ما يباقي جوك من بانتا يما وتما اليوم يا كلامنا ما فما ما ندوكو سيتاني تقما جلسة ملاخو غريالا والما na jàmm. jàmm la kay baal ma si dérangement bi de. amul benn problème. je voulais juste mun naa jot sama avance salaire mois bi. mbaa du nga am ay problème wax la man man sa yaay laa dama la def comme doom bu ma jur wax ma lan moo xew lu ma ci mën jàpp dinaa ko jàpp incha allah. c'est sama yaay moo feebar ba hospitalisé te dafa soxla xaalis pour frais médicaux yi. Oh. masa massa do xaaral ma ñëw dee jàppal tata li sama salaire de. xam naa ko mais jàppale li ci des kon sa prime la pour résultat rama yi. merci beaucoup. ñoo bokk xam nga man dama bëgg lool allah maa ngi lay ñaanal yàlla defal li nga bëggan ci yow. sa njàng mi ngay jàng mu yegg ci jàmm ba nga am say diplôme am sa liggéey di jàppale sa yaay yàlla may la borom kër bu baax a baax butabe melisa mo bos <laughs> nak ah jarure de bu melisa mo bos yombul de okay. yalla baxna ma ngi ñaan sa yaay nak mu juk legi gitu ci jamm salam ndax tamit nga nek fi li yeneen di xew sa ginaaw dafa xaw metti mais sant rek gor gorul nah. yalla baxna bu baax du courage bi be merci beaucoup kontan na ma la gën C'est seetal ma sa yaay d'accord je ko C'est ça. xale bi dafa c'est bon je vais pouvoir t'envoyer. tu pourras aller le chercher dans une heure. je t'envoie un message dès que c'est fait. Ah ouais? déjà bonne, non? Hein? Non. fi votre wata en décadé. Tu as raison, je dois plus m'impliquer et t'aider avec maman. Tiens-moi au courant de sa santé. Soda je suis la définitivement Soda. mais papa tu ni diplôme. diplôme. gis nga ñak diplôme mo gën nga ñak sa ngor ñak sa diine ak sa yar wuru sax te yow nak sax est ce que xam nga ne yow ci tank yoy nga nek xametuma la nak yow xametuma la de lan moy sa problème mais yak defo dara yow sama jaay yow mi yow yaa ma yow mi yaa ma yow mi dem amulo dara loy def bayyi ki mu dem ba dakar yi moom kese dëkki fa lepp yow la man kari faal juruma tombuy taxawal la wax te du ma ko nangu sama njabootam ah. même bu jaree mu tëdd fii ba gis jëkkër sax soore may na ko dina ma ko jar laal wax dégg nga baax li ma la wax. Hmm? yàlla fekk ci moom dara. nga ni. ah. lan la loolu yow. waaw kay. li nga xam nga yéen a boo demee moom mii boo demee ba sekk fa mu dëkk xale bu bi ngay wax kan ko fekkoon noonu. Hmm. ñoom ñaar la ñuy dund en concubinage. ay du wax nag lu ma wóorul. ay yaay. yaay dimbali ma yaay yow. yaay li ngay wax nii garaaw na de noo ko mënee. yow yaa gën a fuuf. xam nga la eh dafa doy ça suffit eh sa waa ji buy sëkk nga dara nekk mu ñëw takk la gàcce bu gàtt moo gën gàcce bu gudd soona te boo takkulee góor gu njëkk dugg fi ñaan soona ma may la nga yow ku la may soona nga yàqu yàq soona yow. ay papa ñàkk jom. ay papa lii sañuloo ko. eh bu loolu papa laa wax. لولا دافا دوي سو ريو مونو توخ سو با نخما مولا دي سو نغا مانا فين ياو فين كات بيغا دون مي بابا فينو مالو مانا تامل سي كو نيو دارا اه اوكي تيغ مو سيكون دارا لكي سا بون كون ليغي ليغي مو سيكون تامل دار ما مايراش دوم سا دوم نجاي غورا فال مي في نيونا دوغينا اوروب تا خماني بيغنا سوخنا تي امنا يار امنا دينه تي بو تاكي دين لا جو رفت

boo takkee bu ko nangoo fay na ko fay boo nangoo fay sa jàng ay xool fii eh tu ranges tes bagages et tu nga sa fulla yow. Eh, papa bu ma xool def sa tojaanga ba pare boo ñëwee papa papa papa gerte dina ma bocc ay bët yow amuloo looy rus amoo looy seet yow amuloo looy yow doo gor yow li nga fay sa papa tey yow lii yow yow yow doo nit yow cim bu ma de. ñàkk fayda ñàkk jom bay bëgg a dee xaw ma foo ma toppee awa. Ça Hein? J'ai pu payer les frais qui restaient et rembourser les gens. Comment tu vas, maman Ça va, Day, il y a du mieux. Attends, euh, J'espère que mi rispetteranno gravement me mentre non normalement. Ça va pas, non Je me reste quelques secondes et tu commences déjà tes conneries. Mais je n'ai ah rien fait. Comment ça t'a rien fait Et toi, c'est mon gars que t'essayes de me dire que ça garce Non, c'est lui qui est. J'aurais dû me douter que cette image de Sainte touche, c'était que du faux en fait. Dégage d'ici. Et toi, sale chien, tu n'as pas honte de toi me retourner à milliard, menga. Babila, tu me fais honte.

Je vais commencer à ak jàng bi nga C'est gars yi il mais booy de. mais yow sa kii mu lay woo mu tax nga ñu chérie c'est des comment tu vas. ça va. t'es sûr. t'as pas l'air en forme. tu as raison ça ne va pas du tout. Le et ça me prend toute mon énergie. En plus, ça est faible. Ça, c'est la l'année j'avais juste besoin de parler avec toi. Je vois. Vous dites que vous finalement Oui, je n'ai pas Mais maman ne va pas vraiment bien. Je donnerai tout pour être à ses côtés. ne sais pas la tué. Vivre loin de sa famille mon Yomboul, j'en sais quelque chose. mais le découragé Yomboul, bul la pas. Moi, découragé. Je suis sa distance n'est c'est un obstacle et je sais que nous mën surmonter je sais Moussa mais comme tu as dit Yombo. mais bon la famille est loin certes mais tu n'es pas seul ici xamal ni am un grand frère qui t'adore Ça y est, na la dénk tu sais lépp loo mun di ce war nga ma ko n'est-ce pas merci je xool eh sekkuñu ay merci. lii moo normal léegi xam naka ngay def. da dem nga noppalu bu suba lépp jàll incha allah. d'accord dem incha allah. allez bonne nuit. yooyu musaa Endo. bay saa ñoom ngay woo ñuy ralentir du dox nice. waaw ma leen ma leen ma Moussa kan booy leen nan ngeen doon wax sànq. non mais tontu ñu kan mooy Linda. jàpp si kan mooy Linda. lii dañuy jàng te doomu sax xaar en plus amuñu woon cours de déjà heures léegi mu jot sax dama bëggoon xool quelques cours en plus appartement bi ma fa nekkee arrive pas à me concentrer mais mënoon nga ma yee ma ànd ak yow en fait Mati nee na ma dangaa xuloo ak Alice loo leen jotee hier soir son copain a tenté de se rapprocher de moi Alice bett ko ba pare ne man maay sàcc Fadam. encore. comment ça encore. même histoire avec cette tante. Alice man mi ngi may bëgg soof Alice xanaa xoolu Jean ak lan moo nekk ci Jean ba ñu koy dob naan dañ koy nangu. j'espère que tu as bien remis à sa place. je n'ai même pas la tête à ça wallaay. Banal xam naa danga maa bëggoon jàppale rek moo tax nga dama ñëw dëkk ak yéen mais dama il y a un ay problème kase en plus je me sens vraiment pas à ma place. et eh, tu es parfaitement à ta place le problème c'est pas toi mais c'est Alice je vais lui dire deux mots mais mi may commencer sauf Nous ñu bàyyi wax Sans sama xol dafa gaaw j'ai une très bonne nouvelle. Hmm, like. Euh. tey su guddi dañuy dem sama kër mën na am mu jàppal la nekk naa fa jay naa lu ma wax rek ngay def <laughs> sa am nga fit lu ma def heureusement ba mën naa togg mais grave bu méttee ba métti ma youtube xool youtube ah awa yaa ma ko jekkee ah, xaaral ma mau sama sax Bye, bye now.

Je vais très bien aussi, professeur. Allez-y, entrez. Le cours ne va pas tarder à commencer. Nos terrible. ça s'est bien passé avec tes parents. tout l'inverse kay. fille crois que pas papa de sama benn cousin la m'bagamay. Non, ça non pardon <laughs> dangay kaf. loolu mi ngi xew ba léegi. nga fekk ne xamul kat mooy sama papa. des fois on dirait qu'il oublie qu'on est au siècle. e siècle. waaye lii sax garaawul Moi, moom di Kenen du ma nangu ñu may forcer ay mariage le problème est que si je rate encore une fois mon année il arrête de payer l'école et là damay suis Thiès. man de Tu te pas la bête? tu as trop abusé Tu ne la pas ba sax je sais pas concentré ou say en fait mais imagine toi nga fait la même année trois fois tu t'en rends compte mom da yex a réagir sax. dadaa ben la de yow ya gëna a si je finis mes études et que j'ai mon diplôme damay dellu Thiès. Si mon père accepte que je vive seule à Dakar, c'est à cause de mes études. loolu nar a def légui je sais pas de xaw ma kan. waye man duma nangu ñu may yobu Thiès dima fay tëj dima fay forcer ay mariage seen ñu archaïque yooyu man nekkuma ci et puis sax man jangi, na. jangi. menn mi <laughs> est-ce que xamati nga sax yow fi école bi nekk ah yàlla nañ la bàyyi nga dugg sax des professeurs jusqu'au gardien kenn du la fa xam sax balay xàmme. may ma. wuy <laughs> ma mm. man may ma ma jàngi laal fa ñetti selfie ah. yónni ko paa bi ah. waaw dalal xelam. <laughs> non yow doo dem. Alors. Hmm. Votre série revient après la pub. Alib, le goût naturel du lait. Pour des moments de douceur, de plaisir et de convivialité, emportez-le avec vous, Thé Flécha, le meilleur du thé. Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie.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 dañ fay jaar vite fait rek ensuite pour changer sama passeport. d'accord. Hmm? Bana. Hein? oui. tu sais je te suis super reconnaissante pour li nga may defal yëpp alors que bañ xamante sax ko. non man su ma la jàppalee kan moo lay jàppale en plus université bi yow rek yaa fi nekk comme sama xarit. même bu ñu xamante woon depuis une semaine sax dama lay jàppale. te un jour mën naa soxla yow tamit nga jàppale ma.

dina la see je maanaam Kara dafa Je bien ni dina la trouver solution en plus je le dois beaucoup. Je xamee. ñu di wut liggéeyal. jamono ji soxlawuñ jànk dama xool feneen. sëñ bi dimbali ma sëñ bi. ñeent fan maa ngi si mbedd bi. loo ma jox ma jël raxas fóot paas lépp bëgg naa sëñ bi jàpp si. jeune fille encore une fois dama xool feneen. sëñ bi jàpp si togg raxas lu ma am jël dimbali. Fidèle sëñ bi fais la rentrée s'il te plaît. toog Fidèle may ko ndox mu naan s'il te plaît. noo tudd. Fatoumata Banel Diallo. Fatoumata Banel foo jógee. Kolda laa jógee. ah oui Kolda <laughs> pourtant de ma famille vient de là-bas même si xaw ma fa kenn sax am ngay mbokk fii Dakar. déedéet tata. si Je ndox bi nga naan vas-y. merci Fidèle. benn kër daam laa doon liggéeyee jëkkëram ñak liggéeyam fa la ma daxé quatre jours ma ci si di wër liggéey buntu bu ma fëgg pour liggéey du am. nga ne lan quatre jours yaa ngi ci mbedd bi te amoo foo fanaan ñaata at nga am. 17 ans. 17 ans lan moo tax delluwaatoo Kolda.

c'est bon xoolal t'inquiète pas tu es en sécurité ici Dingue. après nañ xool lan la mën a jox nga def ok oui ma oui, ma fompal à quoi. Oui ma xool arrête t'inquiète pas. Bien sûr que oui, toi aussi. mën nga fi fanaan tey mais la nga war a def da nga war a jóg yéeg ci kaw nga sangu

Et depuis lors, maman m'a déjà appelé. Donc trois ans il ma train Mon ma je ma en bac de ji ma je ba ci université B. di def médecine c'est elle. Elle a l'air d'être une personne vraiment gentille. Elle est extraordinaire. Gamon't ako nga bayad ko. On m'a mariée quand j'avais 12 ans. Avec un vieux du village, très riche. À mon ñetti jabar. jox sama papa xaalis bu bari sama papa mayam jàmm ji ma doo ci biir naan daf may yàq ay jabaram di ma toroxal si si biir kër gi toog ans di mën ma demee ba mënatuma ko mën dama fige si laa ñëw Dakar fu ma kenn xamul waaw oh. franchement ni sama ko waxoon dama ko mës a xalaat suis désolée. Assalam. Ah, Jalo na papa. Garawd léegi. Tu as raison. Ça ne sert à rien de remuer le passé. Sinon da les tu dois te doo ci ne dara. pas C'est impossible de le changer de toute façon. la sortez de l'hôpital de nee na tane na. oui tane na baax na un message bi. ça c'est super. oui xamoo baax na. et dootoo inquiété wu nag franchement. oui peut-être dafa nekk di toppatoo mais, bi xam tax

j'espère que tu en es fier. Kassi eh, waa luy gëstu sa vie boobu ak lu mu jot ak man. Damel xoolal maa ngi nii di dugg beneen cours je n'ai ni le temps ni l'énergie ni l'envie di toog fii di la expliquer. <sighs> ok ok yow léegi treize heures ngay wàcc right léegi wéet man maa ngi jaar jël la su ko defee ñu jéem a toog nga expliquer ma lan moo xew. mais yow Damel looy déggee expliquer wu ma la te bu fi ñëw nag. namoon naa la. lu fi def heure bi wuyu du def ndànk. sa yaay laa indiloon quelques cadeaux. mën naa fi jaar xoolaay la la. yow li nga xam daa neex sax. Hmm. Ah, ah, ok écoute. wuyu ma waaw puusal. puusal man la. waaw xoolal man dama war liggéey. d'accord. xaalis baa jëm bi CFA. bëgg naa ko nag waaye yaa raw. te nag kay ma wax la benn affaire bi. maado bu dugg see ci kër gi ciompal ma yow mu batéré la rek nga bayyi xalé bi mu dugg ci biir fekk fi damel waye lañu def yow la engagé. wa ñii lu ñuy def ci biir. moma jaaxal. xaalis bi xalé bi jongoma lool xam nga xam nga ni ki duma ko bamu dem yamale mu ko kenn lim ma jox dama dam dama ko dama ko milité. dana la xamal. xana xamu yow xari da nga bëgg xaalis gis nga tay ji xaalis bu duggon ci foos attan nga duggal sa loxo bi jëli ko. waaye lu jar. xam nga tay juroom ben lama jox. yow gis naa lim la jox ëpp na juróom-benn dama bëgg léegi nga xaaj ko ci digg bi doon li ma fi lu tax may tomp yow gis nga kër gii ma yor ko mu xëy def lu ne nga bëgg may comp di la jox loo def. doo toog ma neexal la tuuti. waaw neexalu lan mais yow est-ce que ça va mais yow bi yaa gis naaj bi ne fàng ci mbedd mi xar yeeg di mbéy ngay mais yow pour yow foo ma gis rek dama war a ko quoi. yow mënoo dal lan nga yuuxu en matière de dafa am xale yi nekk ci bi teg naaj bu ne fàng. bu la yeboo nga teel koo tàmm ndax gis nga bis ba ma takkee matin midi soir amul battement heure bu ma ko santé danga ko ciy nekkal. Hmm. ok kon yow bëgg. boo dee ñu suri la. waa kii waa génn moom la. waa xaar tuuti sax. écoute xoolal man dama war a liggéey génnal ñu dem. waa génnal. del bu boo ah dama léegi waay waay sama doom jaa ngi seen couple bi yàlla leen yàlla lafal cat ah waay xale bu jonga ma bu neexiree bi waxuma la dara xam na taraanga xam lu baax boole koog di gis nga boy dugg ci lay taral du ba kenn bëgg ñëpp waaye sama doom ju Dah ji daa doon de ak a doon baayam xoolal xari bàyyil heure bu ñu waxee nga naan kii bàyyam la nuru te nag ku am kër baay am nga kër ndey ma wurus mi ci ndànd saagor mi ci gànjool demba samba gor mbaay ma kumbaay sa kumba ba jëwal battal la demba yaayam ba jëwal ngi gis dama ne tel tonto tel na fa yow xam nga ni sa ndiyaay nga nuru ma dama anniversaire loolu la yàlla dogal <laughs> waaye xam nga ne jooytuma baayam de benn yoon jooytu ma ne jàkk ji jëmm ji xam nga ne jooytuma baayam macha allah boo gisee baayam rek gis na ko boo doonul sa baay kenn du ko doon. sama yaay waaw xoolal sama caat mi li ma defal fa ma jaaroon la daan jaar <laughs> ah waaye ba may toll ni moom nii laa daan def. maa mel noonu nag waaye maa daan kaay ay sama añ bi noiro fii déedéet waaye yaa mel. dégg nga loolu. <laughs> fii lay añee ba mu neex. te ah, xam nga ni ndugg mi ko gis xam ne ceeb ba dafa war a neex. te yow xam nga ni ñun géwél dañoo mën a togg te bis bu ma sëy cee ci kër gii man géwél bu mag bii eh? di nga xam ne roof yàqul jën. Hmm. munu kaa yàq da koy gën safal. dara mu safu yow sama goro bu ñaawul bi yow xam nga ni la nga sëy démb ak bërki démb hmm. dama koo dégg hmm motax nak do doo di may daqaar yow sama nijaay ah. li nga tag sama jëkkeer ci bu doon ñeñu mu takala or dama ni la day sama xarit way nak lolu géwal la ko tag motax mu defal li mu def yaay ma ngi liggey ay ah, way sama doom jaangi xamna joy joy ma sa bay benn yoon ku jur doom xam nga ne deewoo sama dane baangoog de sama faris baa sama sama doom ci yalla jaa ngi yalla jub yalla len yalla fal cet cey ba ma cey toll ay waxuma la ba nga cey toll way cey ba ma cey toll ni da laa daan cekkas cekkasee ah, xamal ma bëgg mais yow da bëri wax yow. waaw sama caadaat bu ñu nee la toggal ngay dugg ak génn ba noppi. waaw sama caadaat mi yow bu neex. may du nag. baal ma sama caat mii nag.

waaye man sa problème bi ba ba tey maa ngi toog di xalaat affaire bi dafa ma jàpp maa ngi toor quoi dama ci sentir trop mal à l'aise léegi expliqué ma su ko defee man ma jéem a xool naka la ñuy def pour jéem a résoudre problème loo fi mën a régler damel sama pap dafa bëgg ma dellu Thiès si je rate encore une fois mon année et moom dafa yaakaar ne yow ak man am na lu ñu sekk nee na nga jël see responsabilités dem ba ci moom ñaani ma wala mu may ma keneen. Ah, loolu kay du problème loolu ci yow des. man bu fekkee takk la rek man pare naa bëgg naa <laughs> mais nag dal nga ci de yëpp yow rek yaa ko naraam. man lii moom métti ci yow on peut pas avoir une discussion sérieuse avec toi. eh waaye man damay foo rek yow nag tu es trop susceptible. damel du lépp la ñu café bref léegi xam nga li xew. waa léegi luy solution mais tu penses que sa papa nekkul di la jéem a tiital rek. certaine mësuma kaa gis muy waxee nii et puis le pire dans tout ça c'est que mère bi daf si dugg te moom lu mu mat a day dagg xawma kan de mais il faut vraiment que je trouve une solution à ce problème duma nangu ñu may yóbbu Thiès di ma fay enfermer mel prisonnière il en est hors de question. waaw ah, kay léegi kay yow kay jàngal am sa licence rek wax ji jeex. c'est trop tard j'ai déjà raté plein de contrôles. mais solution dina am. j'ai peut-être une idée. yow loo wax loolu laay def. lu mu métti doon. waaye wax rek.

mère Fatoumata. ça va mu. ça va alhamdulilah. kii du Linda. dama yaa si jàmm. si alhamdulilah maa ngi ci jàmm kay. la def fi. dangeen xamante yéen ñaar. maa ngi ñoo bokk ko yëmbal man kay yéen ñaar lay laaj noo leen def ba xamante. maa ngi ñoo bokk place. ah. ah. ndekete daal kon Ndakaaru tuuti na dama laa gëj koñ ba. dekat rumah ah bon mbaa jàmm foo dëkk léegi. maa moom ñoo dëkk léegi te jege na université. kon lu kon lay def fi dama ut liggéey si patron nu Fatoumata. ut liggéey kon baax na yàlla na ci yàlla def jàmm ah, baax na man dama indi woon soda maa ngi dem kon on se capte. d'accord ciao kii mooy ma classe mu la Linda. ah. <laughs> bonjour Tata. mooy Linda non. oui c'est ça. ah ça fait plaisir quand même de voir mon beau bokkal parce que du ma faral la gis ay Dalanda. <laughs> alors pas euh, parents fu ñu deux, parce que dafa mel ni dama la xàmmee fenn. non Tata ki Guinéen la te ren la doog a ñëw Dakar. ah ok musuma dem Guinée nag par contre alors Banel nee da nga oui je me devrais bien. ah <laughs> ok ça fait plaisir donc hâte de tester tes plats Linda. donc nga ko ah vous voulez mën comme ni nga <laughs> merci beaucoup Tata. merci <laughs> beaucoup ma belle. merci donc Banel. que ko comme ça mu commencer aujourd'hui reeru tey bi nu muy demee. Mm. <laughs> merci Tata. de Marodi TV, votre visibilité garantie avec une communauté de 4 600 d'abonnés.